mbokki Sénégal na mbokki Touba jamono ji gis ngeen ni jàngoro ji di coronavirus mi ngi lëmbee àdduna bi law ba su suñuy frontière dugg Sénégal loolee waral kilifa yi kenn toogatul ñëpp ñoo ngi xool nu ñuy def bu mën a xeex ak moom mu jóge fii lu mu gën gaaw a gaaw Sénégal nag jamono ji njiitu réew mi yëkkati na kàddu di sàkku ñëpp ñu dogal ci seen loxo loolee waral Khadim Ndiaye di chef de service départemental du commerce sa Pikine di doomu Touba Daaru Marnaan mi ngi yëkkati kàddu di yi di fàttali di sensibiliser mbooleem askan wi nekk si dëkk bu sell sell bi di Touba ngir ñu mën a topp tegtal yi nga xamante ni moom la ministère bi ñu dénk wér yaram bi dénk askan wi kon mbokki dañuy teewlu Xaadim Ndiaye mu def benn déclaration par rapport ak coronavirus di soññi Touba ñu mën a xam fi ñuy teg seen tànk topp tegtal yi ngir jële fi coronavirus. bismillahi rahmaani waaye dëkk Touba Touba Daaru Marnaan may ñëw tey di def vidéo bi jëmale ko ci sama mbokku taalibe yi dëkk Touba ci li nga xam ne moo jëm ci jàngoro jooju ñuy wax coronavirus ginnaaw loolu nag dañuy njëkk a sant xalif général sëñ Mountakha Bachir ci taxawaay bi nga xam ne taxaw na ko depuis bi ñu ne jàngoro ji dugg na Sénégal ak ci Touba taxawaay ba jël ñu ci si ndax ku ne xam na ko da ci njëkk mooy génne koppar yu takku teg ko ci yi nguur gi ci wàllu prévention bi mu jiitu ci wane le bon exemple ku ne gis na ko ci jumaa ni mu taxawee ku gis na it yi nga xam ne gouvernement jël na ko taxawaay bi mu ci am jiitu ci wane la bon exemple joxe ndigal li nga xam ne nii moom la war a joxe ba ci wàllu jumaa ji mag ji ak yeneen jumaa yi jàkk yi nekk ci biir Tuubaa yëpp kon loolu mu doon lu am solo ba tax na mun suñ lii rek dañ koy sof ci jëf ji nga xam ne jëf na ko moo dina ku ne xam ne ne jamono yi ñëwoon nañu Tuubaa di am lu ñu doon séddale di ay produits détergent ak produits yi nga xam ne bokk na ci liy xeex jàngoro ji ñëwoon nañu jox ko ñi nga xam ne ñoo ko gën a soxla ak barab yi nga xam ne jàpp nañu nit ñi dañu fay teew boole ko nag ak sensibilisation waaye nag booba na nga ni kenn diggatuñu te sensibilisation mu wërta mën a yem ci loolu kese ndax jàngoro ji moom mi ngi law te ginnaaw mi ngi law suñu jëfit wërta mën a wàññeeku ci wàllu sensibilisation ba ba tax na ñu ngi gën ñaax sama mbokk taalibe yi di leen gën a euh, wax ne nañu gën a góor góorgóorlu ci mesure de prévention yi nga xam ne nii nguur gi teg na ko ñi nga xam ne ñoo nekk ci wàllu santé wax nañu ko ngir jàngoro ji mën a dem yoonam la ci njëkk mooy fexe ba suñuy loxo ñu koy raxas ba mu set ak saabu ak eau ku am saabu def saabu boole ko eau ku ko am gel antiseptique nga def ko kem sa kàttan ngay moytu tamit contact bi nga xam ne danga koy def ak doomu aadama rawatina booy tiis li wala ngay def jili mel comme ni ñu ko waxee nga sàmmandi ko noonu ba mu jeex tey moytu nag bu baax a baax a baax rassemblement yi dajaloo gi ndax loolu waa kër docteur xam nañu ne dajaloo gi bokk na ci li gën a gaaw propager maanaam tasaare virus bi ci biir dëkk bi te ku ne xam ne ne Touba à part Dakar mooy la plus grande ville du pays en terme de population maanaam nit ñi fa ñuy daje kon rassemblement yi dafay bëri lool. kon ginnaaw nag lu mel noonu dafa euh, yàlla dañu ko nattoo Touba ñu war a lu kenn suñ kàttan ba daje yi nga xam ne mën naa ñàkk ñu moytu ko bu baax a baax ndax wax dëgg yàlla bu ñu waxee ne ñu sàmm sàmmantal na règle yi wax dëgg yàlla dañu bëgg dimbale nit nag man. su suñ jugee fële bëgg ma dimbale du ma gën a gore te waruñoo gën a gore it sëñ Mountakha Bachir war nañ ko siggil bu baax a baax a baax ndax wane na yoon wi siggil gi nag mooy fas yéene lépp lu ñu sant ñu defee ko nañu ko waxee wax naa ko léegi di ci prévention bi di ci ñëwaat ba tey ci couvre-feu bi nga xam ne soo son excellence monsieur le président de jël na ko sur toute l'étendue du territoire national mooy loo xam ne nii la ma doon wax nañu ko respecté ñun waa Touba bu baax a baax a baax a baax a baax lépp lu jëm ci couvre fa ak ci wàllu transport nañu ko respecté ngir ci dëkk bi lañ dëkk nañu ko respecté ngir sagal sëñ Muntaxa kon loolu doon lu am solo loo xam ne nii ndax bëggul dëkk bi ñu nekk muy des ginnaaw ci ñi nga xam ne nii moom la président di jël ak wàllu nguur gi de façon générale pour mm, tawat ji gaaw ci génn te nattab lu wuñu ne suñu góorloo def ni ñu ko waxee sàmmonteeg li ñu wax jëfe ndigal balaa yàgg tawat ji danañu wan ginnaaw bu baax a baax te bañ nag di déglu doomu aadama yi nga xam ne jël nañ seen seen baat wala seen kàddu di ci di ci wax naka su dul noonu di def ci nit ñi xalaat yi nga xam ne ni xalaat yooyu dara nekku ci ndax da sëñ Abdoulaye doon wax lu nekk na la moo jala wax séenal waaye lu ñëw ba pare jot sa wax séenal jàngoro jàng fa lu wér la lu am la kon nag li ci des rek mooy ñu mobiliser wu autour du khalife général des mourides et autour du chef de l' état et de tous les démarrements de l' état ñi nga xam ne ñoo ko toogal gouvernement bi ci foofu ba li ñu mën koo génne kenn nam gën a gaawee ci Touba donc kon ñu ngi leen di ñaaxaat bu baax ci règle d'hygiène yi ñu ngi leen di ñaa ñaaxaat bu baax a baax ci ñu moytu rassemblement yi ak fu mën di doon ñu ngi leen di ñaaxaat it bu baax a baax a baax ci couvre-feu yi règle yi nga xam ne moo ci nekk yëpp ñu mën koo respecté bu baax a baax a baax suñ ko defee suñu borom dinañu dimbale di ñaan ci barke Serigne Touba nag moom mi nga xam ne nee na jubóo naag boromam ba lu lu mu ko mas a ñaan mu defal ko ko ñu ngi ñaan ci barke Serigne Touba di di ko ñaan suñu borom tawat di jugee fi ci nu gën a gaawee ci Touba ak ci Sénégal gépp waaye nag in tansurullaaha yansurkum su ngeen ma sàkkalee lay mu dimbale leen la suñu borom wax jërë ngeen jëf ñu ngi leen nuyu mbokk ñoo ko déggandoo mu nekkoon sensibilisation bàyyeekoo si doomu Touba bàyyi xel lool diwaan bi dina soñu ñëpp rek ñu mën a teg seen tànk fi nga xamante ni moom la service yu ñu dénk wàllu yu ni mel rawatina ministère de la santé et de l' sociale si xeex bu am solo bii kàddu gi mi ngi bàyyeekoo si Khadim Ndiaye mi nga xamante ni fekk na baax fii si Touba Daaru Marnaan di chef de service Dakar di soñu nag ñëpp rek si ñu mën a dugal seen loxo si xeex bu ni mel di fàttali Khadim Ndiaye doon na responsable bokk si cadre yi nga xamante ni ñoo nekk si département de mu yëkkati kàddu yu ni mel di koy baaxee toute la population